ñaari moo yoo xam ne soo ko boolee mu jox la benn turu quartier fii ci Dakar. Mm. waaye benn bi ci masoo lañ koy gis benn bi nekku ku ne bëgg nga ko am ci sa doom. jàmm gën laa ko teg. tàntuwaatal beneen tur. ma tàntuwaat beneen tur. waaw. loolu mm-hmm. ma jàpp mooy première bi mooy jàmm gën. tàntuwaatal beneen bi mooy tamit yaa maa ngi lay nuyu. naa lay fay. bàyyi nga am jàmm baax a baax. maa ngi si jàmm nekk fataaya yeeg yooyu noonu. nii nii rek di neex. Ah, di neex daal. dafa am ñaari moo yoo ne soo ko boolee mu jox la benn turu kàcce fii ci Dakar. benn bi dañ koy gis ci maçon. benn bi ba nga am ci sa doom lu muy tekki. dañu benn dama koy gis ci maçon. waaw benn bi ba ko am ci sa doom. maçon mooy sonn wala. lu a nag de